ak ñu nekk si kawam ñëpp di leen ziare di leen baal xaq te di leen baal xaq di ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala si koor gii ñu nekk mu nangul ñu lépp fulal ñu ko làqal ñu ko fu yàq eegul te defal ñu si ndam ndam yu kawe si njort yi nga xam te moom lañ si yóotu si ku tedd gi tax ñu koy def di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te yegg naal yi yu mu naalal Serigne Touba yi naalal lislaam yëpp ba naal yeneen naal yeneen yeneen yeneen ci baaxu Cheikh na Ahmadul Xadim xëy na buñ nekkee seen kanam sax duñ am fitu wax mbaa duñ am duñ mën a am fasaxa wax liñ bëgg a wax dëgg-dëgg wax li liñ fasoo di wax ñun chaque jour ñun ñii da ànd liggéey mooy dañuy bëgg fu ñu toll rek di am nixiyatul xayri xawlul xayri fixlul xayri waaye dañuy bëgg nag lépp lu si man doon jëf ji di ko dañuy bëgg di joxe suñ ñaq di joxe suñ doole di ñuqi di ñax ñaar lépp li ñu bëgg di ko boole fii liggéey suñ Tuubaa loo tax ñun ñi ñoo ànd liggéey si waar yi ci boolem ci commission yi fi nekk yëpp ànd ko suñ fool mi si wàllu organisation si yëpp ci mboolem yokk yeeg ñëpp di liggéey si biir fànn yëpp rek yàlla dogaloon tey ñu dayale suñuy dërëm suñuy ñaa dërëm ngir ne lii ñuy def di ko defal jullit yëpp waaye di ko def ngir ku tedd kii nga xam ne moom lañ nekk si biir daaraam di ko liggéeyal ndax man damaa gëm ne sax suñu dama ko dama wax nii dama naan dañuy gëm leen ne ñun dañoo nekk ci daara tarbiya kenn suñu nag bu mu ñaan yàlla wàcc te te dëj malul seen kër àjjanaam te ku te kenn ku ne nag ñaan yàlla gudd fan ba dem di liggéeyal say sët loola loola tax dañoo gëm nañu dañoo nekk daara tarbiya daara tarbiya nag boo fi nekkee di ñaqal tëb sëriñ fexe di ko ñaq da ngay fexe di ko ñaqal ba noppi di ko ñuqi lépp loo yor loo yaakaar lu baax la mbaa lu jag mbaa la nga yaakaar moo gën a la nga yor nga jor ñuq ko jox ko noonu nag lañ fas yéenee doxe di ñaan yàlla di di bëgg itam di sàkku seen ngeen ñaanal ñu ànd bi gën a rafet dëgg dëggoo gën a rafet te itam di leen xamal itam ñoom sëñ Abdul Ahad yii sëñ Abdul Ahad ba mu ne sëñ yi rek man naa jàll naa sëñ Abdul Ahad Muxtaar sëñ Abdul Ahad Mutalib sëñ ba ñoom sëñ Abdul Ahad yëpp ba sëñ Abdul Ahad Aafi ak sëñ Pawlu Mbàkke Tuubaa mii ñoom sëñ Abdul Ahad yëpp ñooy suñu royu teew dama koy wax gone yi lu si bëree bëri tax ba yenn saa tax dañ ma siy féet waaye damaa gis jukk yu bëree bëri yu mat a roy si ñoom ndax dañu fee jiitu lu yàgg te wàccul noppaluwuñ te lii ñuy liggéey ak lu mu mën di doon jumtuwaay yi ñuy liggéey mbaa jumtuwaay li tax ñu man a lii bu yombee bañ mën koo am ñun ginnaaw yàlla ñoom ñiila te yaatal nañu si dimbali nañ si lool jàppal si yombal nañu ba ñun dañ siy am kersa sax walaay laxas im tey ñoom bu ñu toogoon di ñuy def loo ñun ndax suñu seen seen seen taalibe lañ ñun seen i taalibe lañ te dañoo mel ñuy jàpp seen i nawle te ñun seen i taalibe lañ seen i ñun ñëpp ku ci mën doon seen i taalibe ñun ñoo suñu sëriñ ñoo suñuy jëriñ ci lépp te jiituñu si lool te rafetal ko lool te son ci lool na guddeeg bëccëg te lii ñu dayal ñun ñoom ñooñu ci jiitu te nañ joxewaat nañ ci liñ dayal ci ñun sun kon nag kon ñoom mm, ngàcc ngalaama daal lépp kon ñooma waaye nag lii ma tàmbalee wax mooy doon ndax mënumaa wax wax ju bëri xëy na sëñ Bassirou Ndiaye mii lañ doxoon mu doon ko dajale moog sëñ Dame Ndiaye ak sëñ Fall ñi nga xam ñoo àndoon nekk dañ koy delloowaat bu ñu yegalee dañ mi nga xam mooy suñ kilifa mooy suñ jër mooy suñ sër mooy suñ bu taxawee dañu am sañ-sañ wax dañu am sañ-sañ def dañu am sañ dara ndigal lu dul jëfe ko rek jëfe ko da koo gën wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw nu bokk sant yàlla ñun ñëpp rek. Ah, mu fekk jataay bi. ak gi ma bokk ci liggéey bi. te sëñ Muntaxa boole ma ci. boole ma am xatumul xel ma. doxale ma seen diggante. di wax di di di di bëgg. lu mu am xatumul xel ma wax. wax ma ko ma ko. lu mu tontu tontu ma ko. lu leen jox jox ma ko. loolee nag. daa fekk ci booleeg yàlla gën yàlla booleeg bokk. bi loolu amee nag jotaay bii moom day jotaay bu ma neex jotaay bu ma rafetlu jotaay boo xam ne bu mat a sant yàlla la ndax yéen ñi daje fii ñëpp gis naa ne ay ngeen te bu ngeen seetee ndaw yi tolloog jamono bare na ku ku xal ci yéen itam daal gis mbokkam moo xam ne ma nga ci politique bi ma ma nga ci yëngu adduna te ne loo xam ne amul benn njëriñ loolu rek la am. kon bu leen yàlla tawfeexalee ngeen ne ci li xam ne jariñul tey ëllëg la yàlla moo leen nar gindi nag comme nar a dimbale da gindi ba nga xam yoon wa mu teg la ca sàmm la la ca des na nga góorgóorlu ni ngeen xam ne nag kuréel di gis lu mu rëy rëy la moom liggéeyal sëñ moo ko may ndax bu ñu ko seetloo tàmm la ko ca Mbàkke Kajoor ja ñëpp sëñ bi nekkaloon ca daara ja bu ñu ko waxee rabbi asxaabaka bil himma te wax ko dongee ñi si gindi leen dañoo ñëw ànd ak moom ñooñu ba fi mu ne koo lamb ci ku ca ku ca bokkoon foo gisee ab ab sëtam xàmme ko ñi ca des demoon toppi aw jàng xamoo ca kenn ba fi mu ne du ma kenn kon ñi ñi naaloon demandiku ñëpp yàlla leen gën a dimbali leen tey ci yoon wax yéen ñii kon ci ndimbal yooyu ngeen am dina am sax laa lay wax ndax ko toll ci yëngu ba yàlla xeeree sa bëgg yëpp jëm ci liggéeyal sëñ bi sëñ bi yàlla dina la dimbali boobaa te nag sëñ bi lu wax ci leer waay fa leer na lool Touba li abdin muridin sadiqin law bi xidmatin kan yee ngi ci xidma aw bi xubbin ki lu mu bëgg du ci yëngu aw hadiyaati ngeen yëgal seen ay joxe ko kon kay seen caabi àjjana ngeen yor loolu ngay sant yàlla fi la sant mën a yem wax jël guddal yéen ngi yow jox ginnaaw bi li wax ne ko def dëkk àjjana Tuubaa li abdin la wax waxa mëri saadiqin la moom mëri saadiq nag lii mooy mën mën a def lii biñ biñ biñu bi ñu wooree ngeen woor ba ngoon dem leen doogu ci seen kër dem leen wuti xaalis wuti leen dara ngeen nekk fi liggéeyal sëñ bi loolu kon amari saadiq foofu la tàmbalee waaye nag yéen sëñ bi wax ne mëri saadiq moom lay def daal dëgg Tuubaa moom ngeen def da ngeen liggéey ba ba bëgg ndax li nga waxoon ne ñaq ak ñoqe loolu mooy li ma ñu doon nga wax ci wax ci wax wax ci nga baat boo xam ne sëñ bi numee loolu daan soo ñëwee ma yi daan wax murid yi bu ñu ko dem mbàkkee mooy dem leen dem leen ak ngërëm te déglu ndigal ndax murid du wàcc am benn murid du wàcc fii pour daan tàbbi àjjana kon nag nan ko fa sax rek am na ci mag ñi mag ko doon soññee waa këram nan ko faso kon nan ko fasoo rek buñ ko fasoo rek kenn dem bàyyi na am na kenn ko doon soññee ci eh, waa këram nan góorgóorlu ndax bëgguma rijaalu laay dem bàyyi ma te man bëgguma dem bàyyi leen kon nan daaw dem kon nag yoon waa ngi nii boole seen bopp di ko jaaxal ci sëñ bi rek ay ndaw ngeen seen ndaw ji bu ngeen ko jaay sëñ bi sëñ bi dana ko jënd fayal leen du leen jomb ndax sëñ Abdoulaye kon moo waxa ne sëñ bi boo ko lebalee loo man mu fayal loo mënut nga nga lebal ko loo mënut mu loo jomb kon nag dañ koy fexe di ko lebal lu mënut ba mu fayal lu jomb loolu buñ ko buñ ci saxee dañuy toog ba sant yàlla rek radiyallahu anhu war a jooje di wax ci góor ci góor yàlla dañ ci teg seen bët ci fan ñàkk rek xam ne ginnaaw du ñoom dimul yàlla mooy yàlla war la yoon wi la am xel jox la la nga mën a ko mën ñàkk. boo ko saxee dëggal ca nag da ngaa gafa jaagoor yàlla na sëñ mi sàmm yàlla na sëñ mi jàppal boppam yàlla na sëñ mi noddil boppam yàlla na sëñ mi dimbal dimbaleel boppam ba mën a sax ci liggéey bi ba am ci lu ci lu ci góor yàlla ma sàmm noo am ko ca ba jariñoo ko tey ak ëllëg ba ci jëdee jërë ngeen jëf يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi